thank you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 di leen dalal ci émission bi nga xamante ni moom moo di débat public débat public di am plaisir tey Eh, di dalal koo xam ne si nii mi ngi yëngute ci wàllu wàllum politique di wuyu ci tuuru eh, Amadou Diop Amadou Diop eh, bokk ci CR APR donc muy comité comité d' entreprise républicaine donc bu alliance pour la république bi nga xamante ni Macky Sall boobu moo ko daal di jiite moom mu daal di nekk ko ordinateur bu zone ouest moom la ñuy dalal tey jii ci li nga xamante ni moom moo di débat public Amadou ñu ngi lay nuyu bu baax a baax ñu bàyyi la nga daal di nuyoo ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy seetaan. voilà Mahfous maa ngi lay euh, nuyu di la ziar di rafetlu aussi sama teewaay fii ci bërëbu Sunugal 24. Mhm. ma koy rafetlu torop parce que lu am solo la ci réew communication dafa am solo ci réew. Mhm. te ngeen nekk ay ndaw yoo xam ne vraiment yéen a ciy yëngu ci anam bu rafet. Mhm. donc ma bëggoon ci profiter rek ci seen euh, euh, internet yeeg. auditeurs yi nga xam ne ak téléspectateurs yi nga xam ne ñu leen di suivre en ligne. Mhm. vraiment pour vous féliciter et encore une fois de plus pour vous encourager. Euh, merci en tout cas ñu ngi lay ñu ngi lay dalal bu baax a baax ci suñu ay plateau ñu daal di jàll ci li nga xamante ni moom moo di waxtaan bi doore ko ak fi nga bokk muy CR CR APR donc muy euh, comité d'entreprise républicaine mm-hmm. euh, ngeen ci yëngu di ci di ci jàppale ki nga xamante ni moom moo di le président de la République mais seen taxawaay est-ce que desul ci jamono joo xam ne si ni tey Macky Sall nekk na ci ay jafe-jafe moom kese daanaka moom la ñuy moom la gis ñi ko a taxaw benn côté bi comme communication wax léegi taxawaay bi des na mm. mais yéen aussi gis ñu leen ci ñi nga xamante si ñoom ñooy taxaw di défendre euh, le bilan euh, du président de la République Macky Sall mm. lan mooy lan mooy euh, justifier loolu waaw lu koy justifier du dara xam nga toujours militant moom militant rek nga mën a doon mm-hmm. te dafa am loo xam ni ce qu'on la discipline de parti il faut que nga respecté ko donc ñun nag CRAPR comme ni ñu ko waxee c'est les comités d'entreprise républicain mm-hmm. ces comités là dafa am benn rôle bi nga xam ni moom la ñuy jouer sur le plan politique mm-hmm. on n'est pas une structure en tant que telle politique maanaam du ñu du ñu structure boo xam ni dañu am suñu autonomie bopp ci biir APR mais dañu nekk benn structure boo xam ni dañu ñëw en appoint au parti mm-hmm. donc kii ñëw di jàppale donc kooku dafa am taxawaay bi nga xam ni moom lay yore donc suñu présence nee léegi suñu taxawaay des na mm-hmm. d'accord naa ni des na parce que quand même euh, Sénégal dafa yaatu te ci yaatuwaay boobu mu yaatu ñun am na ci ay yëngu yoo xam ni tamit ñu ngi koy yëngu. Mm-hmm. donc occasion boobu sax laay jël vraiment pour euh, nuyu ki nga xam ni mooy sunu président des euh, DCR APR muy Adi Sall di ci profité di nuyu notre coordinateur national le docteur Babacar Toumbo ak euh, le coordinateur de la cellule communication muy Ahmed Seck. Mm-hmm. donc di nuyu waa CR APR yëpp zone yëpp maa ngi leen di nuyu. ah di leen jaajëfal di ñaan yàlla aussi lii ñuy wax fii vraiment buñ ci pare mu nekk njëriñ loo xam ne ni réew mi ak askan wi ñëpp dañ ci mën a jëriñu. Mhm. waaw mm, euh, taxawaay bi wax nañ ko léegi muy euh, reconnaître ko ku ne mhm. euh, peut-être que des na Sénégal dafa yaatu mais tamit yaa ngi tudd ay tur yoo xam ne si nii daanaka ñoom ñëw jiitee mais kenn xamul leen tamit mhm. ci wàllum ci wàllum maanaam visibilité nit ñi duñ leen gis du bokk nag ay nit yoo xam ci leen gis te politique aussi dafa maanaam visibilité daf ci baax nit ñi xam kii moom mooy kan. bon li nga wax noonu ne dañuy nit ñi ñuy jiite kenn du leen gis. pour pourtant dañ leen di gis mais peut-être que ci anam yi ñu leen di gisee na mais boo xoolee c'est parce que CRAPR dafa am une organisation boo xam ni pàcc bu nekk dafa am ko koy yore. Hmm. tey man bu ñu ma jàppee ni fii au niveau de Dakar. Hmm. et au niveau de la région de Thiès. donc activité bu mun ti am man en tant que coordonnateur de la zone. Hmm. donc kenn waruma jéggi dem bi indi keneen donc luy am ci man lay jaar. donc loolu moo tax ci organisation boobu mu am organisation interne boobu ñu am. moo tax munoo gis peut-être ñi nekk ci kaw. donc ñun ñi nekk ci suuf ñooy liggéey jox leen parce que ñoom dañuy coordonner rek. ñoom dañuy coordonner mais le gros du travail ci ñun lay wàcc ñu ñi nga xam ne ñoo yore zone yi. effectivement nag li nga wax am na solo parce que euh, taxawaay bi des na. des na mais nag aussi dafa fekk ni euh, li Olof Ndiaye di wax naan nit ku nekk li nga am rek moom ngay demee marché. Mhm. donc serre APR aussi li mu yor rek noonu lay demee. est-ce que foofu jafe yooyu li ngeen am la ñuy demee demee marché mhm. ak fi ngeen toll yore yore yore nguur euh, est-ce que war ngeen am jafe-jafe yooyu pour mën a mën a mën a exister partout mën a am taxawaay bu dëgër euh, amatu mais bien sûr fi ñu toll nii. Mhm. war nañ fi mun a toll. parce que tey li nga xam ne tey structure bi muy parti bi en tant que tel. bu leen ko dépassé la bu leen dépassé. non waroon nañ ko dépassé bu yàgg. Mm-hmm. mais dafa fekk ni peut-être que mooy li ma la wax léegi. avec les moyens organisme bu nekk. Mm-hmm. dafa am ay fonctionnement parce que bul jàpp ne aussi ñoo yore nguur gi rek. Mm-hmm. donc euh, lépp lu taq ci APR rek dafa war a. dafa war a rafet dafa war a nekk loo xam ni vraiment dañu war a yëngatu dañu war a am les moin d' accord na dañu war a am les moyens. Mm-hmm. mais les moin aussi ce n' est pas les moyens de l' État mais c' est les moyens du parti. c' est les moyens du parti comme mm-hmm. tous les autres partis. Mm-hmm. donc foofu la ñuy jëlee ñun suñu ay moyens. donc peut-être que nag mu néew ak mu bëri ñun as tuut gi ñu ciy am ñu ngi ciy planifier suñu ay activités. di ko ci doxal. donc loolu am na solo. loolu moom bëgg naa nga xam ko ni comme ñun ñoo yore nguur gi rek donc ñoo yore kii bi non ñun parti bi. li ñuy ah. am ngeen ay fonds politique. waaw mais fonds politique mais ci parti bi la. waaw ci parti bi la. ci parti bi waaw mais tamit euh, fonds politique parce que parti la boo xam ne APR la néewluñ ko ñu def aussi. Mhm. ay activités la yoo xam ne activité envergure nationale la. Mhm. parce que on a eu à Tamba. def nañ installation zone fii tey Dakar bi ma jiite tey. Mm-hmm. installation zone bi c'est c'était le 27 juillet quelque chose comme ça si je me trompe pas. Mm-hmm. biñ ci jógee on a installé la zone euh, S. muy la zone de Tambacounda man mm-hmm. mii la ñu délégué woon ma dem installé ji la zone de Tamba. bi ñu fa jógee on a installé la zone euh, euh muy Fatick. bi ñu fa jógee on a été dans le nord installé ji la zone nord donc ça que ni aussi bien vrai que ni moyens yi peut-être que li ñu soxla yëpp yëpp yëpp mënuñu ko am. Mm-hmm. mais ak li nga xam ni moom la ñu yore ñun la peu qu'on mm-hmm. vraiment ñu ngi ciy fexe di ci def suñu ay activités la preuve en nekk tey. chaque jour boo xoolee. Mm-hmm. partager nañ dans nos dans les réseaux sociaux dans les statuts li nga xam ni mooy un quotidien d'information bi nga xam ni ci biir serre APR la juddo ay boroomi xam-xam ñoom ñoo ko euh, tënk vraiment di ko génne chaque jour pour montrer li nga xam ni boroom réew mi def na ko ci réew mi. on accord. d' accord. donc loolu pour vous montrer que ni. xam loolu ci seen liggéey la bokk. ci suñu liggéey la bokk ci hmm. suñu liggéey la bokk. mais du loo xam ni ñi jiite CRAPR dañu nëbbu bañ a wax wala génn nit ñi fësal leen. Hmm. ñun pour ñu wax la pour régler problème bi ci CRAPR benn leader lañu am. Hmm. muy le président Macky Sall. topp ñu benn ginnaaw directeur. topp ñu ci ginnaaw benn ministre. suñu répondre dans automatique bi nga xam ne tey moo nekk ci kaw mooy le président Macky Sall. ñun moo tax ñuy liggéey. parce que gis nañ taxawaay bi nga xam ne am na ko ci réew mi gis nañ ni tamit réew mi fii ñu toll ni tey liggéeyam jot na ñu wane ko askan wi yëpp ñu gis ko mhm. te loolu dafa manqué dafa mais di ngeen ko ak moom ci yenn jafe-jafe yi nga xamante ni euh, population bi ñu ngi koy jànkoonteel euh, euh, ngeen remonter information bi parce que des fois léeg-léeg da ngay jàpp ni Macky Sall lu xew ah, wala peut-être que ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko jege waxuñu ko li nga xamante ni moom moo am réellement ci sur le terrain. est-ce que léeg-léeg jafe-jafe yi di ngeen ko remonter euh, pour que moom mu mën ci jot man a régler aussi yenn problème yi. xam nga tey boo xoolee ci ossature serre APR. Mhm. dañu am ce qu'on appelle un comité scientifique. gis nga comité boobu. Mhm. ay boroomi xam ñoo nekk ci biir. gis nga tey lii ñuy ruumandaat ci réew mi. Mhm. wala ñuy dugg ñun ñi nekk sur le terrain di ko rencontre di ko jafe-jafe yooyu suñu toogee ci comité scientifique bi jafe-jafe yooyu la ñuy jël tënk ko ci document envoyé ko moom. moom président président parce que bi mu ñu recevoir jox nañu ay canaux yoo xam ne dafa leen ne bu ngeen def ñu ne bu ngeen bu ngeen ma bëggee jot jaar leen fii su ngeen amee lu ngeen may yónnee jaar leen fii te am na ci yu bëri yoo xam ne tey peut-être que ñun ñoo attiré attention ci loolu moo tax ma ne la ñun au ser au niveau des serres APR benn leader lañu am muy le président Macky Sall toppuñ ci benn ginnaaw ministre mhm. toppuñ ci kenn ministre boo gisee sax ñu am relation ak ñoom c'est parce que gis nañ ni peut-être askan wi soxla nañ dara xam nañ ni kii moo ko war a kooku il faut ñu dem laaj lan mooy problème bi lan mooy gàllankoor bi suñu expliquer rek la ñuy doog mun a ñëw véhiculer l'information véhiculer la message bi nga xam ne moom la ñu bëgg euh, joxe mais vraiment ñun suñu taxawaay bi nga xam ni mooy les CRAPR les comités d'entreprise républicains vraiment dañu am suñu li feuille de route boo xam ne ñu ngi koy suivre ñu ngi koy topp te vraiment li nga xam ne as tuut ci ay moyens yor nañ ko. Mhm. vraiment ñu ngi ko ciy def. Mhm. di ko liggéey. d' accord ñu daal di ñëw ci li nga xamante ni moom moo di actualité wax naa ko léegi jafe-jafe yi nga xamante ni mhm. euh, population bi ñu koy euh, dund li ci mel ne wàllum euh, dund bu cher bi. li ci mel ne wàllum logement assainissement ay problème la yoo xam ne si ngi fii président la république sax reconnaître que ne reconnaître na ne loolu ay jafe la yu fi yu fi nekk ba tax mu indi gouvernement bu bees avec un premier ministre comme Amadou Ba mu nekk euh, loo xam ne si ni aussi euh, xaar yàggal nañ ko xaar euh, muy poste premier ministre. Mhm. ndax li ñu dese ci ay ay ay weer wala benn at ak ay weer mën nañ ci régler jafe-jafe yi nga xamante ni tey président énuméré na ko muy wallum jafe-jafe dund gi ak assainissement. bon man dafa am benn terme bi nga xam ne moom laa ci jàpp. mooy le terme bi nga xam ne mooy régler parce que fii ak 2024 soriatul. donc mënuñu fi régler régler problème mu sénégalais yi mais li ñu mun a def mooy ñu fexe saafara li nga xam ne sénégalais yi ñu ngi koy dund ci mu néew ci lu mu bëri ñu fexe nan la ñuy atténuer loolu mais pour régler ko day nekk loo xam ne vraiment vraiment vraiment il faut c'est un miracle ou bien amener un messie pour ñu ñëw def ko. Mm-hmm. ñàkkul ni nag dañuy def politique mais ci kaw def politique boobu aussi il ñu xam lii. li mën a nekk li mën a nekk ak li mënta nekk. li nga xam ni ñun tey jàpp nañ ne war na mën a nekk. Mm-hmm. mooy que dañ fexe ba saafara. xam nga fexe ba saafara du rek ak régler du benn. mais naka la ñu koy saafara ni ñu koy saafara mooy la nga xam ne tey par exemple tey yow wax nga ko dund bu métti bi. Mm-hmm. mais c'est c'est un peu partout dans le monde. avec l'inflation. Mm-hmm. avec les moo mondiaux tey ba tey tey rek ci information jot naa ni les cours mondiaux ont baissé li ma njëkk a xalaat ma ne ah kon Sénégal de peut-être xanaa situation bi dina xaw a. Mm-hmm. Euh, tanewaat tuuti bu fekkee ni cours mondiaux yi baissé na. donc Sénégal dina xaw a talewaat tuuti ak li nga xam ne askan wi ñu ngi koy dund. Mhm. donc yooyu c'est des éléments yoo xam ni état mi ngi def lu nekk tey boo gisee tey coow amul ci réew mi. parce que mhm. tey bu ñu fekkoon nii tey benn exemple rek laa lay jox essence. Mhm. dañ ko subventionné mais buñ ko subventionné wul tey le litre de l'essence di nga dem ba mille francs wala 1000 et quelque. litre gasoil bi di nga dem ba mille et quelques mais état xam ne ni yooyu ay source de conflit lay après moo tax mu def tout pour mun a Euh, wàññi prix yi wàññi loolu du wàññi sax mais daf ko subventionné ba nga xam ni prix yi dañuy statique dañuy dañuy nekk fa nga xam ni foofu la ñu nekkoon mm-hmm. parce que imaginel tey bu yokku woon tey nga am jafe-jafe transport mm-hmm. fi ngay fay 200 di nga fay 400 fi nga doon fay 1000 francs di nga fay 2000 francs donc yooyu yëpp c'est mm-hmm. des faits yoo xam ni sur le plan social sur le plan économique dafay dafay génn sénégalais yi dañ koy dund. Mm-hmm. parce que le sénégalais lambda tey bi nga xam ne bu yeewoo 1000 francs moo nekk ci poosam. Mm-hmm. kii paas 200 war a dem ñu ne ko 400 francs ngay paas kon loolu ça pose problème. Mm-hmm. donc yooyu bu ñu jàppee ne tey euh, euh, dund gi dafa métti d'accord naa métti na mais nag yokk na payoori pouvoir d'achat bi tamit dina xaw a yëkkatu yëngatu tuuti. mais mu ñi mu ñi mu yokku c'est c'est les fonctionnaires fonctionnaires yi sax boo xool ñu dara par rapport ak euh, population bi. waaw mais attention l'état l'état prend en charge les fonctionnaires. oui mais il prend pas en charge le privé mais c'est-à-dire boo bëggee basé wu foofu. ne pouvoir d'achat bi dama lay wax rek loolu. benn benn exemple la rek. Mm. ndaw c'est-à-dire mm. que boo demee ba yokk salaire donc pouvoir d'achat bi tey dina xaw a mën a. Euh, euh, même boo ko sentirul sax di nga am benn dix mille wala benn cinq mille boo xam ni mhm. dina ruus ci sa gafaka mhm. nga xam ni lii au moins amoo ko woon fin du mois bële mhm. mais fin du chaque fin du mois di nga ko am mu mais góorgóorlu bi aussi war nañ ko war nañ ko mën a taxawu ba nga xamante ni tey eh, bu xëyee dina mën a am lu mu yóbbu këram dina mën a am lu mu lu dunde wala keneen ki nga xamante ni dafa nekk di taqale bu xëyee dina war a mën a am dina maanaam dina ko yomb mu am lu mu lu mu dundee pas fonctionnaire bi nga xamante ni tey moom moom day assuré moom am mais ñi nga xamante ni amuñu weer tamit. loolu laa lay wax léegi. ay góorgóorlu lañ. loolu laa lay wax loolu dama la bëgg expliquer ne la. Mhm. su état deful woon tey yenn subvention yi ci yenn domaines yi. Mhm. tey panier de la ménagère bii ñuy wax tey yow da nga koy dund man dama koy dund. Mhm. yow da nga koy dund man dama koy dund. da ngay joxe dix mille francs léegi dem ca marché ba ñu indi la cent francs ne jeex na. parce que lépp yokk na lépp yokku na. jéggaane bi aussi c'est un problème. waaw mais jéggaane bi nag. ñu ñoo ko teg suñu bopp parce que xam nga ñu teg ko suñu bopp. tey fii on est en de faire la promotion de de de de de de nos de nos produits locaux bay li nga xam ni ñun moom la ñuy dundee. Mm-hmm. mais tey demal dans le fleuve dans le dans la région du fleuve ñaata tonni ceeb ñoo fa nekk.

a jaar yëpp daf fa jaar tey comprendre nga. Mhm. nit ñaa ngi koy lekk nit ñaa ngi koy dund tey am na j'ai un ami boo xam ne tey chaque fin du mois dañ ko envoyé deux sacs parce que këram moom la ñuy dundee mhm. mais ñun cest à ñoo war a changer suñu ay habitudes Mhm. tout en sachant que ni jamono dafay dox. àdduna état bi aussi am na ci benn rôle ah. état bi rôle bi mu ci mën a am rôle bi mu ci mën a am bu fekkente day ex day day importer ceeb boo. xam nga xam ne si nii ceeb bu ceeb bu bëri ba nga xam ne si nii du ñu mën a jaay li ñuy bay tamit problème day am. waaw mais loolu. ñu war a tolloo xam nga loolu yëpp tey. Mhm. dund ko fii. benn exemple bu gën ndaw rek. Mhm. c'est juste après la tabaski ou avant la tabaski avant le magal. Mhm. kilo oignon dem nañ fi ba mu euh, yéeg ba nekk ci. 1000 francs parle de de de sac sac cinquante mille. sac cinquante mille dem nañ ba ko fi wax. Mhm. mais c'est parce que nag aussi état lu mu def def def def aussi. mais ñi nga xam ni ñoom la ko séqal. muy les importateurs mmh. mu ñoom la ko séqal muy les commerçants ñoom la ko séqal muy les grossistes ba ci le plus petit détaillant mmh. ñooñu ñëpp je pense que keroog journée de concertation bi mu doon def ak ñoom pour que ñu mën a harmoniser seeni ay doole mmh. mais on ne peut pas se permettre aussi état jël ay mesures par rapport aux importateurs wàññi leen ay taxes wàññi leen ay charges ñooñu tamit bëgg ñëw faire fi de ces de ces diminutions la bëgg maintenir le même bi ñu doon def loolu mënul nekk mënul nekk buñ ko dee def aussi état état yor na état moom moo yore doole ji war na a dal seen kaw. mais dañuy dal seen kaw mais li tax mu mettre en place les commis les les volontaires là. Mhm. mais c'est tout simplement pour ñu mun di saytu au niveau des quartiers. tey da ngay ci sa benn boutique ñaari boutique yu jàkkaarloo nga dugg kii jaayee cent franc kii jaayee cent cinquante. Mhm. te doo ci mun dara. te la. loolu mooy jafe-jafe yi askan wi mhm. nag lay jógee parce que tey le panier de la ménagère bi ngay wax tey xam nga Sénégal dafa am mu soxla. su xëyee na ndekki bu midi jotee na añ bu ngoon jotee mu reer c'est-à-dire que de démocratie sociale mm-hmm. moom la soxla te loolu pour nga mun a am un aperçu pour nga mën a xam fan nga koy euh, jauger mm-hmm. mooy nga xëy suba dugg ci butiku naar bi mm-hmm. non brave dame la ci butiku naar la ñuy nduggee jaay ma ceeb jaay ma saabu jaay ma dëwlin le reste après ñu génn dem ci taabalu tànn nogay wala tànn ci jënd carotte jënd kii léeg-léeg nga nga dégg leen ñuy kaas benn carotte nan nga mun nga jaayee deux cent francs mm-hmm. wala nan nga mun ko mën a jaayee trois cent francs donc ça veut dire jafe-jafe yi am mm-hmm. foofu nga koy commencer sentir ci kiy jaay taabal nga koy njëkk yi parce que bu daan jënd carotte cinquante franc ñu jaay ko ko fa cent franc donc ça pose problème mhm. mais li ñu mun a def nag pour mun a saafara loolu il faut que nag état au moins mu teg ay garde fu yoo xam ne tey ñii indi seen i ay produits di ko jaay di ko dugal ci biir réew mi mhm. bu ñu leen exonéré ci yenn taxes yi imp commerçant bi koy jënd aussi xam ne wàññil nañ ko douane ñu wax dëgg yàlla ñu am yërmande ci population bi mhm. il faut que les gens ñu am yërmande ci population bi parce que man mënu ma nekk commerçant di indi suma produit ne lii laa koy jaayee jël ko tegal dafa mel ne yow doo mm. jullit dafa mel ne yow doo sénégalais mais nag comme on en politique am na ci ñu bëri ñoo xam ni opposition bi daf leen di kii su ko ah defee ah man ci li ma jàpp loolu yaa ngi tooñ ah. mais dama ne parce que loolu du rôle opposition aussi dama ne dama ne mm. mais dama ne comme on est te ñun suñu waa ji fu mu nekk nii mm. taxawaay bi mu am nii réew mi ñu ci bëri bëgguñu ko bëgguñu ko gis. Macky Sall waaw. bëgguñu ko gis mais c'est-à-dire foofu laa bëggoon ñëw euh, euh, Amadou parce que Macky gis nañ nii Euh, de plus en plus dafay dafay dafay dafa nekk di di di perdre euh, aura bi nga xamante ni amoon amoon na ko. Mhm. parce que gis nañ bu nga xoolee ci local yi élection yi. Mhm. nattukaay la ah. mhm. gis nañ ne am na ay jafe-jafe ci surtout yenn yenn diwaan yi. ñi ñëw ci législative yi mu gën a metti ci moom. ñuy wax ay cohabitation à l' assemblée nationale yi ngeen fa am aussi ji toll foofu. Euh, loolu lan lan ma ko expliquer. bon man loolu njàngat bi ma ci am xam nga nag gis nga njiit moo métti. njit mu métti. mais nee nañ nguur gi jeex la ah. non gis nga nguur gi jeex. yàlla rek a ko xam. du man mais am na ay signe na ay signe aussi ah non am na ay am na ay signe loolu loolu man je vais pas me verser dans ce genre de débat. Mm-hmm. buy jeex la nguur yàllaa ko yor. Mm-hmm. parce que moom ci boppam ba muy ñëw di toog ci nguur gii yàllaa ko fi teg. Mm-hmm. bu fiy jógee aussi yàlla moo ko fiy jóg moo ko fiy jëlee. donc yow du man du keneen du opposition du keneen. ki yàlla namm ni yaa fiy toog kooku pare na yàlla suñu borom pare na ko pare. bu nee moom la dafay toogaat kenn mënu ci dara parce que nguur yàlla moo koy def ci doomu aadama. mais di génn ay éléments naan non nguur sii ñu nguur guy jeex la siiñu lii lay def nii sii ñu def li lépp borom bi la mais dafa am loo xam ne tey ci élection locale yi ñuy jógee. moom benn nit la de il gère 17 millions de sénégalais. nga war a def choix dans les départements nga war a def choix dans les régions nga war a def choix dans les communes mais c'est parce que. ña ko waroon jàppale. jox ko laa bon information ah man ci suma xam-xam. dama jàpp ne joxuñ ko information yi parce que tey Mahfouz bu fekkee mi ngi goxam. am fa benn popularité boo xam ne Mahfouz il est en contact avec les populations di taxawu askan bi suba ak ngoon guddi ak bëccëg lu ñu xewle mu ne ca tey ba dara desul ñu war a jël Mahfouz teg ko pour mu jiite commune am ñu bàyyi Mahfouz fële dem jëli keneen yooyu yëpp aussi nag ñun ay doomu aadama lañ. Mm-hmm. man mii ku nga sot mm-hmm. bu ñu ko defoon sa mbokk nga sot man buñ ma ko defoon bi bi ñuy wax votre sanction la cest à que c'est les Sénégalais qui ont sanctionné mm-hmm. parce que par rapport aussi ci yéen ah ak décision wala ak choix yi nga xamante ni président Macky Sall def na ko waaw loolu loolu je pense que ni c'est c'est élémentaire sax ci ñun mm-hmm. mais li gën a am solo mooy tey erreur bi nga xam ne ñun def nañ ko mm-hmm. élection gox goxaat da ngay bàyyi gox yi ñu tànnal seen bopp man ça c'était mon avis man ñu bàyyi gox goxaan yi. Hmm. kenn ku nekk nga tanal sa bopp. mais législative yi tamit euh, nombre député bi ngeen am en tant que parti au pouvoir 82 députés il a fallu Pape Diop ñëw euh, pour ngeen am soog a am majorité absolue amaat ngeen ba euh, une voix de moins muy Aminata Touré mi nga xamante ni moom ne na non inscrit lay bokk léegi loolu ay jafe-jafe la yu ngeen di dund yéen waa Benno Bokk Yaakaar waaw je <laughs> suis pas au nom de de Benno Bokk mm. Yaakaar mm. mais je suis là au nom des CRAPR mm. mais li nga xam ne ñun jàngat bi nga xam ne am nañ ko ci gis nañu gis nañu gis nañu résultat yi ni mu doxee mhm. gis nañu ni mu tëddee ak euh, li nga xam ne nootu camarade euh, bi nga xam ne bokk na ci APR mhm. bi nga ne dafay génn wala génnagul bi nga ne nee na non inscrire wala may man ba léegi fii may wax ak yow mhm. amaguma benn preuve ne dem na bind na président assemblée. non bind na ko parce que loolu c'est ah, officiel man gisuma ko. non c'est officiel. waaw gisuma ko mais de toute façon mais de toute façon. ce qui est sûr et sûr on toujours cette majorité là. comment ah, mais nag saa waay dañuy politique. naka saa waay dañuy politique ngeen di amee nañuy def ba toj suñu bopp ji ndax du xam nañ ko. non naka ah, euh, Amadou. Amadou majorité moom majorité. mais majorité bi ñan ak ñan ñoo nekk assemblée. ci ñan ak ñan nekk assemblée opposition moo fa nekk ak pouvoir. jeex na. opposition bi ñu boole opposition day xëcc ci pouvoir. Mm-hmm. opposition. Mm-hmm. mi ngi def tout pour xëcc ci pouvoir.

noonu ñu koy defee ci ñun mais yéen a liggéey pour xëcc ci opposition bi. noonu la ñuy def est-ce bu ñu gisee opposition bi ñu am. c'est vrai on est en xam nga li ma a jàpp ba jàpp. opposition bi ñu am en politique. te en politique am na ay termes yoo xam ne waroo ko sax dégager. Mm-hmm. il ne faut jamais dire jamais. bul xalaat ne lii mun na nekk wala lii munul nekk parce que ci politique la ñu nekk. Mm-hmm, mm-hmm. parce que boo xoolee tey réew mi fii ñu toll nii yëngu-yëngu yi am ni yëpp c'est des ay yëngu-yëngu politique la te man. en tant que politique je déplore ça. les gens n'ont pas le temps de travailler réew. Mm-hmm. dafa am temps wu politique ak temps wu liggéey. mais waruñu toog pandant douze mois sur douze on ne fait que de la politique ça je déplore ça. Mm-hmm. politique politique la pare nañ ci pare nañ ci on tourne la page. ba mu ñëwaat ñu def ko taxawaay bi mu turé am ban jàngat nga ci am taxawaay bi mu amee. Euh, loolu moom je c' est une camarade boo xam ne je la respecte man xamuma ko moom mm-hmm. xamuma. ñu bokk rek parti mais jàpp naa ne man. ci suma gis-gis la réaction qu'elle a mhm. dañu war a jàpp nit nit la nit ku nekk danga nga am sa grain d'orgueil mhm. mais nag moom ni mu doxalee en tant que kilifa ak fi mu jaar ci parti bi mhm. ak privilège yi nga xam ni parti bi jox na ko tey warul woon mën a am taxawaay boobu loolu moom dama koy déplorer taxawaay boobu waru ko woon mën a am parce que du du ku ndaw ci parti bi du ku ndaw ci parti bi mais nag li anglais naan euh, that is fi nga xam ni foofu la wax ji nekk. mooy question bi. mooy. Mhm. la mu wax ak kilifa gi. man fekkewu ma yow fekkewu keneen fekkewu ma ñoom ñaar rek a xam ak yàlla de. Mhm. la tax mu gën tamit ñoom ñaar rek tax moom. troisième mandat bi ci la bokk. non troisième mandat. question troisième candidature. xam nga troisième candidature. pour ma régler waale problème bi parce que xam naa ne di nga ma ko laaj. Mhm. man du ma ci wax xam nga tax ma ci wax. je ne suis pas aw benn. mais tamit acteur politique non acteur politique la am nga gis-gis tamit parce que question bi tamit c'est une question politique mais en tant que acteur politique. Ah ah. tey yow sa kilifa bi nekk fii ci ci ci ci euh, chaîne bi. Hmm. bu la nee Mahfouz fii lii ak lii laa bëgg ci kër gi. Hmm. mais da koy respecté. mais bu fekkee ni kilifa gi toog ne bëggatuma dégg nit wax ci troisième mandat bi. Hmm. troisième mandat bi moom moo ci war a wax. mais ngir yàlla nañ ko bàyyi moom waxal ko boppam man lu ma ci wax damay extrapoler mais aw ma ci benn information. mais ka war a wax muy ndeyu mbil gi muy son excellence le président makki sal moom moo war a wax nañ ko bàyyi loolu. mais est foofu la ñu waroon a toll tey. non non non moom moo war a wax. xam nga tey ah, fi ñu war a toll wax kenn waru cee wax est-ce que moom moom moom loolu bëgg naan kenn du ci wax kenn waru cee wax ak yu mel noonu tamit. du question kooku moom question de constitution la bi muy wax ne demande pas aux Sénégalais de ne pas le dire. moom ay nitam la wax parce que gis na ni. Mhm. dafay indi ay débat yoo xam ni ça ne vaut wax naa la ko léegi. 2024 mhm. bii. Mhm. ki nar a nekk président. Mhm. Euh, doo ko doo yàlla sunu borom teg na ko ba pare. muy moom muy keneen man laa ci yemale. mais je sais que ni man tey bu fekkoon ne par rapport à ce troisième mandat là. su ñëwoon laaj ma suma xalaat. man en tant que Amadou Diop coordonnateur de la zone ouest des serres nan nga gisee troisième mandat bëgg nga ma def troisième mandat ba dama ko naan waaw. pour la pour pour pour la. pour sa constitution lui permet. non non non article bi lan la wax. maanaam lu mu wax ci la lu mu wax lu mu wax. parce que sénégalais dañuy jàpp ni nul n'a le droit de faire deux mandats nul, consécutifs. nul ne peut faire. nul ne peut faire plus, deux mandats consécutifs. Mandats consécutifs. voilà maintenant ba premier mandat bi lan la. C'est un mandat. De combien Non, on parle pas non, de mandat. Non, c'est un mandat de combien d'années On parle pas de ah, mandat de 5 ou de 7 ans. Mandat, le Non, non, non, non, non. non Qu'il soit, que le mandat soit 5 ou 7, euh, ou 7 ans, c'est un mandat. Marfous. Amadou. C'est que dafa am lo xamni. Question troisième mandat. Question mandat, question mandat, question mandat. Question mandat, xam nga Abdoulaye daf ko réglé woon. Mm-hmm. Mais dafa amul lu ci xawoon lu ci xawoon nekk un problème. Mm-hmm. Macky Sall ñëw réglé ko. Mhm. ne nul ne peut faire plus ah, pour rek pour pour rek ñu bañ a dund li ñu dundoon ak Abdoulaye a xam nga Amadou xam nga lu tax man mënu ma sori ci loolu. Mhm. wax naa la ko sànq. aw ma mhm. ay prérequis en droit. et je ne suis pas constitutionnaliste. yaa ngi dégg. Mhm. ni nga amee sa njàngat. Mhm. noonu laa amee suma njàngatu bopp. Mhm. yow na nga koy interpréter nul naa la droit de faire deux mandats consécutifs. na nga koy interpréter ak man na ma koy interpréter du benn. mais non non non du question sax foofu la ñu waroon toll xam nga tey du foofu la ñu waroon a toll. mais dañu tollu tey foo xam ne tey fii ci réew mi tey. il ne faut pas tey Sénégal dafa nekk loo xam ne man lii raam. si ñag bi lay jëm xam nga pourquoi ma ne lii raam si ñag bi lay jëm. parce que tey boo ko nangoo. ëllëg keneen ñëw toog gis ni arrangé na ko ne dama koy def carte. mais tamit keneen ñëwaat. defaat ça veut dire xam nga ñun Sénégal ñun nga ne. il a verrouillé ah ne loo verrouillé na ko. man day wóor na yàlla te aw ma aw ma texte constitution bi kenn mënatu ko parce que li liñ doon lim parce que liñ dundoon 2012 dañu bañ a dundaat ko moo tax mu verrouillé ko kenn mënatu fi def ñaari mandat yu toppalante donc loolu je pense que leer na. mais man je sais une chose. voilà. xaw ma je sais une chose. Mhm. noonu ñuy waxee nul n'a le droit de faire deux mandats consécutifs. yorewoo texte bi man yorewuma texte bi. Mhm. ña koy interpréter c'est des constitutionnalistes. Mhm. mais jàpp naa ni man en tant que militant. bu ñëwoon laaj ma tey ndax moom. mën na présenter c'est-à-dire man foofu laay bañ a dégg quoi pour ñu avancer. mais pour di ko dégg nag il faut ñu il faut ñu bañ a tamit. naan non il faut nga nekk constitutionnaliste ou bien il faut nga jàng droit pour comprendre li nga xamante ni moom la euh, texte yi constitution bi wax. je pense non nekkuma foofu de. non dama jox exemple. waaw waaw xam mais ñun aussi. nekkuma ci ay war nañ def constitution bi de telle sorte que mhm. ne lii c' est du c' est du français sujet verbe complément. mu mhm. jeex ñu bañ fee nekkaat ci affaire problème wu interprétation ak mhm. laa doon bëgg a waxee. Euh, pour ñu avancer euh, ñu dem ci li nga xamante ni moom moo di politique. ak opposition bi. Mhm. Euh, amnistie ñu ngi koy tudd Macky Sall sax moom moo ko wax bon jël na décision. Mhm. wax na ki nga xamante ni moom moo di euh, Ismaïla Madior Fall ministre de la justice et garde so mhm. mhm. ngir ñu euh, taxaw ci ñu yóbbu ko assemblée nationale ñu voté ko ñu bëri jàpp ne euh, loi boobu am na lu ci nekk ci ginnaaw am nag lees waxul. amnistie bi kan la. non amnistie la ñuy def mais dañu jàpp ne ki nga xamante si moom mooy Karim Wade ak Khalifa Ababacar Sall dañuy dugg ci biir. bu ko defee ñu daal leen di delluwaat seen ay droit ñu mën a nekk comme candidat mën na mën leen fal ñu mën a fal aussi mën a voté euh, ñu bëri jàpp ne tey am na lu ne ca ginnaaw lees waxul dafa bëgg a làq ay ñooñam yoo xam ne si ni tey def nañ ay tooxi doon ci wàllu gestion kii mel noonu mu bëgg leen ci dugg am ñu gis ne que ni euh, Ousmane Ousmane Sonko la bëgg faagaagal moo tax mu bëgg a libéré Karim Wade ak xalifa Sall ban jàngat nga ci am Amadou. Hmm, jàngat bi ma ci am mooy. Hmm. Euh, kii di Karim Wade c'est un citoyen sénégalais. kii di Khalifa Ababacar Sall yàlla def ñu dem ba am ay problème ak yoon dem ba li nga xam ne tey moo leen di seen balaanu kiirlaay boobu sax dem nañ ba futti ko ba teg ko fële àdduna di dox ba nga xam ne tey ci ci ay prérogative am hmm. ki nga xam ni moom mooy njiitu réew mais il a ses prérogatives prérogatives yi nga xam ne moom la am pouvoir boobu mu am hmm. ba ne ministre de la justice xoolal ma nan la ñu mun a defee une loi d'amnistie mais du ci Macky Sall rek lañ ko def Senghor l'a fait pour Mamadou Dia Senghor il l'a fait pour Mamadou Dia te bu ñuy wax sax ci ci wàllu politique je me ni li Mamadou ja dund ci Senghor gisuma kenn ko ko dund fii ci opposant yi jëlee la fii yóbbu la Kédougou ñaata at donc il faut que Sénégal aussi ñuy am repère ci éléments yu mel noonu. cest nga xam ne dañuy faagaagal calcul politique. xam nga tey ay ay politiciens pour. pour bañ ñu dem non après bu bu fekkente ne léegi nekk ñooñu nekkatuñ mën menace ci yow nga ni donc nañu. def nañu def benn benn nañu def nañu def amnistie. yow déglu ma rek déglu ma rek soyons soyons cest dafay dafay jox dëgg ñi doon wax naan Macky Sall moom mooy choisir ay candidats. non soyons soyons logique. Mhm. soyons logique vraiment et cohérent. Mhm. su suñ ma waxee man personnellement. Mhm. ne dafa bëgg faagaagal Ousmane Sonko yaa yaa ko tudd nag moo tax ma tudd ko. parce que on est mais d'habitude je ne veux pas me prononcer ci nit yi mais nag on est en politique foog ñu tudd ko. Hmm. tey Ousmane Sonko boobu ngay wax même bu ko Macky Sall sax am amnistie wul euh, Karim Wade amnistie wul euh, kii nu mu tuddati Khalifa Ababacar hmm. mais ginnaawam dafa taq. lan la taq ginnaawam. amul luñ ko fi jiñ ah damay laaj. moom un président fiable war a jël réew mi. publiquement non dégg nga loolu mi ngi yoon tamit laisse-moi continuer s'il vous plaît. Mm, comme mi ngi ci loxo yoon. Mm-hmm. Mm-hmm. tey boo ko yoon ne woon kaay. kon lu ñuy wax Macky Sall la non dama lay laaj c'est-à-dire que Sénégal. il faut dossier bi aussi dafa am dossier bi aussi dafa am politique non Mahfous Mahfous. Mahfous bi dafa am politique déglu ma mm-hmm. déglu ma dafa am politique. élection locale ku gagné dama lay laaj ku gagné. yéen a ngi naan yéen a ah. ñun ñu ngi naan ñoo ngi mais ñoom ñoom ñoom ba ñu gagné fa ñuy gañee ña ca nekk responsable yi. Mm. zone ba ku nekk fa nga gañee lan nga wax la justice a fait son travail. élection député yi benn justice bi la de. Mm. amul ñaari justice Sénégal ça veut dire tey bu ñu xoolee ni lii arrangé na leen ils sont d'accord. lii arrangé wu mais nañ ci bañ na ko politique boo xam ne dama loolu rek dama koy tënkee. Mm, waa ji dafa toog ci télé mu ne. gis nga ñun politiciens il faut que nag nga xam ni des fois. Mm. dañuy xam ni lii nii nii nii nii yoon la. Mm. ñu mais affaire politique la ñu dëgg ci suñu tànk. et il a doon même donné l'exemple de Ablaye Wade pour diir que ni. xamoon nañ ni Ablaye Wade xamoon nañ ni Ablaye Wade. sa kan candidature mënoon na ko déposer pour mu am un troisième mandat xamoon nañu loolu yoon mayoon nañ ko ko mais pour des affaires pour des trucs politiques moo tax ñu yëngal ci réew mi wax te kooku mag la woon aussi mu retiré mais nag aussi ñun mais dama la bëgg laaj tey est-ce que c'est seulement l'opposition qui est Sénégal mais bu leen fàttee ni opposition nañu nekkee di bañ. mais dossier boobu aussi dañuy jàpp ne dañu gis ne c'est pour euh, euh, faagaagal benn faagaagal benn oh, oh, opposant boo xam ne si ni tey oh, bu am doole la mi ngi dal ci seen kaw. bu ngeen ko freiné wul bu ngeen ko reyul politiquement. non non du ñu rey du ñu freiné daf leen fi indil ay jafe-jafe. man je sais ah je sais le cas de l'autre là Ousmane Sonko. Mm. c'est le cadet des soucis de Macky Sall. non monsieur Macky Sall Ousmane Sonko ko tee nelaw. mu mooy que yéen bëgg leen gis Ousmane ko mu nekk nii li mu yore ci li nga xamante ni ni ko nit ñi gëmee ndaw ñi gëmee. waaw yéen leen gis loolu. non non déglu ma est-ce que du loolu mooy danger bi mooy. est-ce que du danger ci yéen ñi ni ko ndaw ñi gëmee. Mm-hmm. ci lan la ko teg. peut-être ay discours yoo xam ne si. discours yi ci lan la. mais la. programme ban non de ban programme ban discours mu def fi programme. non ay wax en tout cas. wax lan la mi ngi wax loo xam ne si nii mi ngi leen mi ngi leen. convaincre non non non xanaa démb la loolu démb la xaw ma bërki démb. pour yow c'est la première fois. Mm-hmm. démb la xaw ma bërki démb laa gis muy def ay activités di ci wax loo xam ne au moins amal nañu aw yëriñ. mais fii toog nañ fi il a eu toujours un discours va-t-en-guerre ku fi toog ne deux cent mille personnes la ñuy jël yóbbu ci palais bi l'histoire des vingt et la morts est là dans ce pays là kan moo ko fi indi ça veut dire que aussi vous êtes des journalistes vous posez des questions le journaliste il doit être pluriel mm-hmm. cette pluralité là moo lay permettre ko tamit ni nga gisee loolu am nit ñi topp ko di daw ci ginnaawam noonu nga war a mën a benn rationalité boo xam ne aussi côté pouvoir aussi da ciy rationnel mais dafa dafa am lu ko indi lan li ngay wax nii dafa am lu ko indi parce tamit bu bàyyi woon ñu faagaagal ko jaarale fi yoon fi ñu jaarale eh, kaay wuy yoon mais tamit non déglu naka naka la amee eh, kaay wuy yoon nga ñëw lan moo tax la dernière fois bi ñu ko interpellé buntu këram ne ko doo dem jumaa lu tax deful tentamar bi mu génnee ne dem jumaa ñu ne ko demaloo jumaa lan moo tax deful tentamar mais aussi mu non mais arrêtez mais mu nekk loo xam ne du yoon ah. non non non non déglu non euh, ma rek. déglu ma parce que liberté liberté. liberté de culte la et serait été moi. mën na dem ju été moi. Hmm. man di ngeen ma dinañ ma rey foofu mais dinaa julli ji moo tax ma ne on est en politique. Hmm. on en politique. mais est-ce que tamit gis nga gis nga est-ce que est-ce que est-ce que état tamit mën na fekk benn citoyen bëgg a dem julli ji wala wala génn ji génn xool barricade këram na ko du génn loolu ak tooñ la tamit gis nga gis nga gis nga gis nga euh, Mahfouz mm-hmm. man dama bëgg lu ñuy wax mm-hmm. parce que lii ngay wax ni askan wi yëpp koy seetaan mm-hmm. te dañ ci war a wax loo xam ne tey man j'aurais bien aimé gis nga Ousmane Sonko yàlla bi ma tiim xam na ni jullit la jullit laa du ma bañ doomu aadama mais nag choix dafa am am naa sama sañ-sañ en dehors de Macky Sall en dor de Macky Sall de laa wax. Hmm. bu taxawoon tey ne man damay nekk candidat ma ne ko ànduma ak yow am naa ci sañ-sañ wala amuma ci sañ-sañ. waaw wax mais dangeen ma koy nangul noonu ngeen koy nangulee ñeneen ñi ànd ak moom dañu ànd ak moom parce que cofeel googu lañu am ci moom mais ñun amuñ cof man de awma cofeel googu ci moom parce que gis naa ne kii kat buñ ko joxee réew mii. Sénégalais yi dañ màcc seen baaraam bi tax. lii ma lay wax nii foo ko teg foo ko teg mais ana programme am. loolu ban document nga gis rek bu ñëw teg. daan ne non non écoutez écoutez. am nañ am nañ am nañ programme tamit peut-être. ban programme anamu wax ma ko ah. yow miy journaliste wax ma ko. yow miy journaliste wax ma ko. saa waay dañuy waxante dëgg dañuy waxante dëgg gis nga le président Macky Sall bii. Hmm. ëllëg sénégalais yi dinañ màtt seen baaraam wiccax ne suñu sañoon. xam nga Ablaye Wade dem na ñuy jooy Ablaye Wade. Mm-hmm. Macky gën a pire parce que amul lu mu fi deful en douze ans. yow xam nga. non lu mu il faut mu métti. il faut mu métti man du ma wax ne dafa war a neex il faut mu métti on pa peut pas faire d'omelette sans casser des œufs tey sa yoon bii pour ma ñëw ñaata temps laa fi def fépp ñu ngi koy liggéey mais imagine bu paree cinq minutes je la là mais da koy nangu aussi parce que xam ni c'est la loi du développement développement moo tëddee noonu. tey man jóge naa fi dem dakaar dem ba Tamba au début ba ma daan dem Tamba di nga def au moins huit heures de temps mais j'ai quitté Dakar arrivé jusqu'à Tamba amul benn kërë kërë ci tali bi tali bu normal ak yenn infrastructure yi ngay romb ci dëkk yu ndaw yi gis nga nag li Olof Ndiaye di wax naan kenn du gis euh, pomme ba pare dem di lekk new li fi am Sénégal muy Macky Sall muy usman sonk muy ñëpp d'ailleurs la loi d'amnistie là mais moom il toujours sa vision la vision mooy dajalewaat waat ñëpp toog waxtaan parce que réew mi ñoom la moom xam ne ni par A ou ëllëg lu mu fi bu fi defoon téeméeri at dafay dem mais na rafet sénégalais yi nañu rafet nañu nañuy cultiver lu rafet ñun ci suñu biir man gëw ma politique boo xam ni sama doom dinaa permettre ñu naan ko sa papa moo toog ci télé bi di saaga wala sa papa moo toog di wax naka su dul noonu parce que demain l'histoire retiendra te lii ñuy waxi nii lu ma fi munti wax tey tey tey dix ans ci kanam dañoo ko fi tegal donc war nañ ci mun a bàyyi xel bu ñu demee nag ba suñ ay homme politique di toog ci télé yi di wax yenn waxi di wëlbati kuwaat di wax di dal ci kaw presse bi man quoi qu'il en soit je te respecte xam nga ma respecté la mm. parce que taskatu xibaar nga te xam naa ne doo ma jox xibaar boo xam ne tey xibaar boobu du naka su dul noonu xam naa ne xibaar boo munti jox il a parlé de certaines presses. non mais mais moo dul yoon moo dul yoon patron de presse yi sax mais moo dul yoon parce que loolu tamit politique la parce que dafa am patron presse yoo xam patron de presse yoo xam dañuy def politique. waaw mais xam nga même ci patron de presse yooyu. muy tiire ci ñoom pas pas les journalistes. même ci patron de presse yooyu muy tiire. Hmm. moom la warut a def parce que boo tiiree ci par yow say sa patron bi su ma tiiree ci moom ci yow laa jëm. Hmm. lu mu bon bon xoos naa la c'est-à-dire il faut que mu am respect. il faut que les gens ñu am respect ci nit ñi ak ci seen la ñuy liggéey journaliste bi dafa yore njaboot dafa yore ay doomam dafa yore ay jabaram dafa yore ay jarbaatam ak ay nijaayam bu njëkk ba ñun bi ñu nekkee xale bu ñu nee kii journaliste la dañ lay seetaan benn journaliste moom ma marqué Sénégal ndem si àll si Soro Diop man damay wax ni su may jënd journaux tey moom moo tax bëri fi nag ay yeneen ku mel ne Cheikh Mbacke Guissé bëri na fi ñeneen ñoo xam ne tey c'est des journalistes da ngay xam ne ñii ay journalistes la ñuy wax xam ne tey boo leen toogee da leen di naw parce que seen plume la ñu yore di bind. li nga def nii tey <laughs> mais dama la ci naw parce que maa ngi mel ne tey ku toog ak ak un grand journaliste politique parce que lu mu bon bon am nga prérequis moo gisee sànq maanaam le journaliste il doit être pluriel. Mm-hmm. loo nangul opposition rek nangul ko pouvoir. mais bul di wax mukk ni yéen Macky sàll dafay bañ a gis Ousmane Sonko wala Ousmane Ousmane Sonko ban programme la woon Sénégalais yi wax ma rek ban livre wala ban programme la ñu ñëw tegal Sénégalais yi mi ngi nii. man de su ma ko wonoon wóor na yàlla ma. ma xool ko na génne na livre solution. génn ci ay ay problèmes yoo xam ne si peut être indi na. ça c'est des chimères ça ah, c'est des non non non génn na génn na livre solution. Euh, non dañu ne programme Sénégal la ñu programme mu Sénégal. tënku ah, ci livre mais solution mais solution pour apporter des solutions par rapport yi nga xam au pouvoir avec le yoonu yokkute. après le président le président Macky Sall il est venu au pouvoir le plan Sénégal émergent il faut ngeen xam yoonu yokkute bi ñu ko ah. fale woon aussi bi mu yoonu yokkute la ah non Sénégal après dafa dem France ñu tëggal ko xaw ma fan ñu tëggalaat ko beneen plan Sénégal émergent mu ñëw ne moom lay doxal <laughs> Amadou en tout cas maa maa ngi lay remercier bu baax non mm-hmm. mm-hmm. man vraiment dama leen di jaajëfal merci parce que c'est un débat spontané. Mhm. te lii mooy àdduna. réew mi nii yu mel nii moom lañ ci war a mën a dox. Mhm. en tout cas daal je sais que moom boole leen ma ci seen euh, abonné. Mhm. chaîne yi parce que même bu dul lii sax. commencé woon naa leen di leen seetaan. parce que lii dafa am solo. te maa la ciy gërëm ci disponibilité bi. vraiment di la ci remercier di baalu àq nag sénégalais yi. di baalu àq ñëpp parce que wax moom demee noonu wax neexul. donc lépp lu ci dëng rek ci man la mais li jub nag ñoo xam ni ci borom bi yàlla la di remercier di féliciter nuyu encore notre euh, président Adi Sall le coordonnateur Babacar Toumb Ahmed Seck Modou Gueye Toumani vraiment le comité exécutif mm-hmm. vraiment des serre APR xam nga pour bon la benn affaire ci serre APR mm-hmm. serre APR dafa nekk euh, structure boo xam ni ay professeurs d'université ñu ngi ci ay médecins ñu ngi ci ay journalistes ñu ngi ci donc ça veut dire que ay maanaam nit ñoo xam ne seen xalaat dafa màcc yenn domaine yoo xam ne xaaruñu sax ñuy utuñu sax yenn defar mais nag dafa am loo xam ne aussi président bu gisee ay nit di ko defal daf leen war a promouvoir ça c'est un message que je lance. dafa war a promouvoir ñi nga xam ni ñoo nekk tey ci serre APR bi parce que tey serre APR bi ci parti bi la bokk. lu mu leen defal ñu defal ko parti bi. Hmm. kon daal yéen gisu leen seen bopp ci. Euh, non du question bañ ciy dugg du question gis suñu bopp. mais non mais nag boo nekkee ci benn mbir di nga bëgg xam nga tamit. di nga merci di nga bëgg ñu responsabiliser la. ñun de suñu sañoon vraiment mu responsabiliser suñu ay nit. Hmm. parce que gis nañ ci ñoom ay qualité ak ay valeurs yoo xam ne tey ñooñu ku leen jox responsabilité ñu gérer ko. d'accord encore une fois de plus maa lay gërëm. Hmm. di la sant merci beaucoup. maa ngi lay jaajëfal yow aussi Amadou Diop donc bokk ci CRAPR. waxtaan bi am na solo donc euh, débat public nag noonu la. Ah, mi ngi noonu débat public <laughs> muy am ay ay xëccante. non mooy débat public <laughs> euh, mi ngi mi ngi noonu ñu ngi lay remercier bu baax a baax. Euh, ci nangu gi nga nangu répondre suñu invitation. di remercier bu baax a baax. ñi nga xamante ni. Euh, ñoo jàppoon ci émission bi euh, ba mu yem muy équipe technique bi ku ci mel ne Dóor euh, ñi nga xamante ni également ñoom ñoo ñuy suivre suñu plateforme muy Sunugal 24 ñu ngi leen di jaajëfal fu ngeen mën ci nekk ci ci Sénégal wala bitim réew ñu ngi leen di remercier bu baax a baax ci kóolute gi ak copp gi ngeen am ci suñu ay programme di leen wax rek ngeen wéy di ñu abonné suñu chaîne YouTube di ay aimer page Facebook bi waaye tamit li nga xamante ni moom di application bi ko am seen téléphone jaaree ko ci Play Store jox dig daje.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 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laa dum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax